bëgg leen a dimbali ba lañ jot taxawal suñu borom nangu ko ndax lu mu jàll lu nekk yàlla nangu ndax nitu yàlla yi dañ daan feeñu sëriñ bi ci nekkam di ko wax ne ko sunu jaamu yàlla danoo bëgg nga fexe ba suñu borom nangul na moo xam daal jël yenn buy jàmbur yi di ko dugal ci ay woyam naan doo déggee maanaam nangam na nga xam ne diw moo ko wax loolu la ci jublu woon de jublu ci jàngale daf ci bi yàlla nangul kooku lam waxoon jàngalewul de ndax bu doon jàngalee rek danaan dem leen ci téere sàngam waaw ñi xam jàngale xam nañu jàngale danaan joxoñ naa la téere sàngam dem jot waaye moom day wax naan boo gisee may wax ci wax ji maa ngi ko jële ci biir bindu turam defaale ko ci woy bi ndax sëñ Thierno Diop moo ma nettali ne ma Ahmadou Anbal mi ñuy wax naan mu jëkk ma la du moomu kooku gànnaar la dëkkoon kooku benn téere la amoon téere bi mu dem ba kenn jàngatu ko ci kaw suuf mu feeñu sëñ Tuubaa ne ko sama yool dagg na kenn ko mujjoon di jàng faatu na jamono ya ma bëgg nga yeesalaatal ma ko sa waa kër di ko jàng ba na loolu taxoon sëñ bi woo sëñ na mu demee yëpp ba ba binduloo ko ba ko sëñ Mat Jaw bindee di ko jàng ba mu gisaatee Ahmadou Hanbal Ahmadou Hanbal da ko ne maanaam maa ngi jot yool boo xam ne bii bokkut ak sax yoon yu jëkk ya ma daa jël loolu moo tax sëñ Tuubaa di jël di jël woyu ay raay ak yu demee noonu yëpp di jël woyu ay woyu Cheikh Naama Tidiane woyoon sax di ko def ci biir xasit yi woyu Seydina Abdou Khadre Jeylani ngi ci biir xasit loolu nag ku ko dégg da nga naan dafa recopier yëf jàmbur soppi ci benn baat fekk déedéet kooku lay defaral la mu la mu defar la mu defar waaw ngir suñ boroom nangu ko ba faw ndax moom lu mu dugg rek am ak nangu am na ca te ak ñàkk nangu dootu ko am léegi nag sunna dañ koy wax wax naa nit ñi ne na yi gën a yomba def nga xam ne jigéen mën na ko gone mën na ko ñëpp mën na ko yooyu sunna rek ngay dégg ñuy waxtaane naan nañ ko roy yonent bi daa bëggoon ndawal sàngama daa bëggoon <laughs> nawee yan bi danaam peñe si cin béeg foo ko fekk mu ngi yor seetu jël si cin jël peñe rox ci poos beeg naan sunna laaj yant bi def daan ay yërëm daawul buuboo xam nga yooyu sunna defe ñu bari mu ngi ca nekk nii ba defe nañ ne loolu rek mooy sunna xam ne ki ñoo xam ne sax nangootuñoo siggi bu ñuy dox sax dañuy dañuy sëgg ndax defe ne loolu rek mooy sunna waaye sunna fi mu naqaree roy dëgg dëgg dëgg dëgg mooy li andi bés bi mooy am na sunna yoo xam ne sëñ Tuubaa yonent bi rek ba mu jógee ci sëñ ci yonent bi sëñ Tuubaa rek a defaat sunna yooyu mooy wa is yamkuru bika alladina kafaru yéeféer yi bari nañ doole bari nañ kàttan seen xam-xam bari na jote nañ fu ne amuñu yërmande te liñ bëgg rek lañ xam mm-hmm. te nañ daje ak yoon yonent bi sallallahu alayhi yàlla waxoon na ko mm-hmm. ni ko yéeféer yi doon fexelee mel nam Sëriñ Tuubaa la yéeféer fexelaat ñu toll moom mm-hmm. ndax ñi ci des moom yéeféer ñoom aw gallax bi ko sax doyu ñu leen li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka danañ la tëj tëjuñu ko kaso moom def naa ne mboolem nitu yàlla yi li ci sëñ Tuubaa nekk ci kaso benn nit yàlla mosu koo fanaan ci kaso kon li isbitoo ko moom rek mooy priorité bi hmm? aw yaxtuloo ko wala dinañ la jéem a rey yow Seydina Muhammad mel nam sëñ Tuubaa moo daj ci ñuy bëgg a jël bakkanam biir dundam amul benn bés bu muy xëy te tubaab yi duñu ànd stratégie bu bees pour jël bakkanam biir dundam ba ni fi jógee euh, wax naa ko keroog mais am na ku baax ku ma nekk ni ne ma am na soxna soo xam ne dafa selloon ba sëriñ bi da ko daa woo teg ko nee di waxtaan ak ñoom ndax ni soxna si sell waaye nee na benn yoon la ko sëñ bi am lu mu ko wax mu yuuxu ba fi baatam yem keroog la ko sëñ sëñ tuwaa gëj a waxtaan ak ñoom لكن سيد بي دافا دافا دافا توب سيل سخنا سي باخ كلوم اتوني نانا بو سخنا سي يوخو نجاريم ني نيكون تي كيس يي بيغ ني تي جيغيم لا دولا جول سال ني خامو نون مانا يوخو نو تا لوكو سيد بي وا سيد بي ناتي رك لاكو دون ناتي نيكو ني ني ديف خارم تبسكي ديف نان ني ndekay soxna ci attu nako mu ne ko ñadd nañ ma ni ñi di xaru sëriñ nga xam kon sëñ Tuuba moom lu mu daj ci lislaam yor sa dictionnaire sa njaboot wër la ataay ji ñëw café ji ñëw ngay dugal ay baat di dugal ay loxo di jim ni di changé bu taxee nga defe ne moroomu sëñ Tuuba nga wéru yàgg sa waa kër yi wéru man ngeen defe ne ay nit ngeen waaye du ngeen ay nit waaw <laughs> te léeg ma dégg ko naan hey diw lu mu daj ci diine man xanaa sëñ Tuubaa lay wax ñu ne ma déedéet man ma génn ca wax ah, damaa xamul kan moo fi daj ci diine li sëñ Tuubaa daj bi kan ci àdduna ba mu sosoo li mu daj sax saaba yi daj dañ daan ànd di xeex di jàppalante di dimbalante di ànd waaye ba àdduna sosoo ba léegi maanaam kan moo masa taxawal lislaam di ko xeexal yow kenn yoroo ngànnaay yoroo dara moo mm-hmm. tax mu dem ba ne li baana wax di anna allaha wahidun wali mm-hmm. bi laa yamilu jahidun mm-hmm. noppalu leen de man dong la wóor ne yàlla kenn la wax naa ko ko tey ñëpp xam nañ ko nag yàlla kenn la ñëpp xam nañ ko xam nga xam ak mu wóor la bokk waaye moom fa mu jaar ba mu wóor ko ne yàlla kenn la fan la fa kenn jaar wa yamkuruuna wa yamkurullah foofu la affaire bi ne والله خير الماكرين خمغا ويمكرون دنين فخه نيوم ييفه ويمكر الله يالا فخه لول اوتوماتيكول دنجكوي ديغ نون ديفني بولا ييفه فخه لا رك يالا فخه دي دين كتان نغاي نيت نيت نيت نيت ري لين نيوم نيب خمغا لا ولا غاي نك بلا بلا بلا نغا اغتي ويمكرون الله بلا نغا اغتي والله خير الماكرين نغا دوندكو دي نغا yàlla day noonu ah gaa yi gaa yi xam nañ fi mu jaar ak tubaab bi te islam lañ doon défendre lu tax àgguñu ci wayam kuruna wayam kurullah walaa xayrul makirin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na aaya yoo xam ne boo ko dee seet sëñ Tuubaa moo ko bind moo ne zaadat niyel baax yi masaratan tadum fi suurati lan faali xabasal karim suurati lan faal ba mu wàccee yàgg na moom rek am audace boobu ay alxuraan wàcc ba am junni nga ñëw ne maa ngi mbig moo xam ne du dog ba yomal xiyaam te ku bëgg a xam sama mbir moom jàngal suuratu lantaal te moom lantaal ba muy wàcc ñooñu nekku waaw am na nu tubaab yi daan def ay nitu yàlla loolu kuñ ko wax li nga xam ne sëñ Touba du kenn kenn du moom am na nitu yàlla boo xam ne man gis naa lettre bu bind sëñ Touba di ko wax nu ko tubaab yi def waaye ci lay xor ba xam ne ñoom système yi ñu am foo mën a jaar ci ñoom ba jàll rek loolu rek bul bind dara bul am ay sëñ Fallou ay sëñ Saliou yow jaaral ci tubaab bi ba jàll rek boo ko kenn ndax moom nee na tubaab bi ni ñu ko def dañ ko dañ ko dañoo fexe ba xamul ndax xamatul heure bi xamatul ndax guddi na ne wala bëccëg loolu la ko tubaab jëkk a def foo ko fekk ñu ngi ko tëj fa lëndëm moom noonu rek lañ ko def xam nga ne kooku wilaayam ko xam ne yow yow dañ laa tëj fa lëndëm rek xamatoo foo ne mujj gi mu ñaan ne dafa bëgg bind sëñ Tuubaa lettre mu bind sëriñ bi lettre ñu yónnee sëriñ bi lettre mu ne ko xamatuma ci jaamu yàlla dara xamatuma waxtu yi ndax dañoo gis ma ñeme julli ñeme rakka ñu def ma noonu léegi damay julli nii rek waaye du ma xam guddi laa ne wala bëccëg dégg nga loolu dañu dem dañu dem da ngay xool boobu nag am na yoo xam ne kenn weddiwul seen wilaaya waaye tubaab bu la nee diw dama ko dàq ba mu dugg dafa ànd ak man di xeex ba dugg barab sàngam fa la réeré loolu waxee tubaab ah daf nga day disparu dans les farines de Bandiagara dégg ngeen ba mu yàgg tubaab armeel la. waaw nga xam ne doon denc ñu gënoon a fonk. Ah. ay poches yu ci kaw montagne. wér na de wér na. Mhm. ah xam ne dem nañu ba andiwaat jaaseen. Mhm. abalaat ko gars yi ne leen barkeelu leen. kon sëñ Touba ku ñuy wax sag baax nañu wax rek sag baax mën ngaa baax. Mhm. waaye sëñ bi kenn du ko tudd tudd kenn. loolu mënul nekk. loolu warul nekk sax hmm. kenn waru ko def ndax dafa bokkut ak kenn lenn nuruwul ak kenn lenn hmm. amul amul lennam looy teg mu nuroog lenn kenn amul hmm. waaw du mbindam du ay doomam du ñi yar du ay dëkkam du jàmm yàlla nuruwul ak kenn dara nit ñi nag loolu foofu la war a nekk noppalu kon nag bu ñu tolloo ci bisu mel ni góor ci góorgóorlu bu baax te def ci suñu lépp te xam ne lu ñu nangu moo yombatul xam nga loolu boo gisee ñu naan nañ jàng xasida yi xasida yi képp nga mën a waat taxaw di ko waaj jàng ne maa ngi waat ci yàlla ne lii nangu nañu leneen loo yor muy tur yàlla woo yor yaa tax muus yi nag yaa tax fa loos si nag yëpp a ci yem dara nga ci xaw xamul xama soo sax ndax mu ngi doxam di ah waaw. gis ko yor turu obsolète bu périmé yor ko di wér di wér ba tooy ji xotti ko nag. benn waaye dama ko gis mu naan ma sama sama mbokk la nag. ñu sëñ bi Latif. fekk yor yoroo tuba yi toog bi wérdu ba mu xotti ko nga wutaat beneen tërngaal wérdu ba mu xotti ko doo jot ci jaab bi ma ne ko latif nanu may ñu ah. mooy bii moo gën a gaaw waaw yooyu ngeen di wax ñu tuba yi nga xam ne tërngaal pour pour ah yëpp dafa tardel nit ku ñuul sëñ Tuubaa ñëw andi ñu lu gën a jàppandi. Cheikh Ibrahima ñëw tënkal ñu. nees di jariñoo rek. moom andiwul leneen de. Cheikh Ibrahima moom yoonam nekkul ci leneen. xam nga lu yoonam ne nu nit di jariñoo rek. loolu képp lay jàngale. te xam nga jariñu moo gën a jafe. ba noppi jàngalaat nga boo jariñoo ba noppi noo koy téye ba jariñ keneen. loolu moom rek nu ko jàngal. waaw. jëriñ yombul jëriñu téye ko bay jariñ keneen yombul te bu dul moom loolu du am kon nag nit ñi li ñu nekk nii nañ ci góor bu baax a baax te jàpp sëriñ bi te bañ ko yemale dara te jàpp ak taalibe te xam na mooy tax a mucc àdduna ak alaaxira waaw li fi nekk lu ci gën ak taalibe amul c'est vrai li mu wane ku xam Cheikh Ibrahima am loo xam ci moom rek di nga xam ne lu mu wane rek moo gën la moo gën lu lu loo fi mës a def loo mës gis li mu wanee ko gën ndax dafa tënk yoonu yàlla yëpp te li ci nekk mooy Cheikh Fall kat dafa doy waar nit ñi seenu xam-xam moo bënnul ba maanaam lenn lu mu lu mu samp lu lu yàlla santaane woon amul ci yàlla amul maanaam dafa dem ba nëbbu ba nit ñi booleetuñ ko ci ndax wala attanatuñu loolu mënatuñ ko wala gisuñu kuñ ko mën a defal ceq ko moom moom mu ñëw nag ànd ak ki ko mat mat ko moom wan ñu naka lañ koy def loolu képp la loolu képp la kon nag na góor góorgóorlu ci taal bi xam naa ne guddi na dama doon dañ ci doon barkeel nag. introduction rek développement bi nag. ñu ngi développement bi lañ soxla. ah sëñ bi waaye sëñ bi defal la ko. kii fan yëpp damay waxtaan sëñ bi. nga fi ne dañoo mar. waaw waaw waaw waaw ndox bañ gis ko ba xam ne am na ndox. waaw léegi damay damay kii rek bu ko defee sëñ bi dolli na nag. waaw waaw déedéet ah, bisimilah sëñ ma jàllal jàllal rek ba ci kanam. sëñ ma mën na la dolli. déedéet bisimilah sëñ ma mën na xam naa ne fi mu ne nii. jàpp ci rek. ah fi mu moom. man xaw naa guddi. tey xam naa ne tey ah. ah moom de xam naa ne daal. <laughs> waaw ñu ñu nag ñu ñu ñu jàppe ko noonu rek. Mhm. te xam ne. Mhm. ñun ba àdduna sosoo ba léegi. Mhm. liñ am. man waxuma ko ci waxu daanukat. waxuma ko ci waxu sama xam-xam. sëñ Fallu mi kenn rawul moo ko wax. moo ne liñ am kenn amu ko te daf ci sëñ Fallou dàq mas la waaye sëñ Tuubaa mosu cee mas la liñ am kenn amu ko suñu waaj yi kon nag nañ mel ni kenn mel ni waaw liñ am kenn amu waaw du kenn du ku ñuul du ko weex du kenn kenn amu kon nag nañ leen góor góorgóorlu ñu léegi nag li mata roy kon ci sëñ bi waxuma toppandoo wax naa ko ba tàyyi sëñ Tuubaa kenn du ko toppandoo sëñ Cheikh Fall ne woon na la njage sëñ Tuubaa ñi ko doon toppandoo ñëpp dañoo mujj doyee bi ñi ko doon roy ñëpp saf nit mu ma ne ko ah waaye sëñ bi loolu doy na waar bi mu ne ma sëñ Tuubaa kenn du ko toppandoo da nga koy roy hmm. ma ne ko luy toppandoo mu ne ma nga jéem a mel ni moom nuru moom di waxe ni moom di doxe ni moom di ñàkk lekk di ñàkk a nelaw da ngay dee rek xiir <laughs> dee day bokk naan day dal mu waaye nag pas-pasam ak yittim ak ngorom ak njubam loo ci man nga roy ko di nga dem ba noppi liggéey ko mu gërëm la xam nga loolu loolu tamit ñu bare bare xamuñu ne dañ defe ne dañu defe ne roy mooy toppandoo te roy ak toppandoo bokkul. nee na ma sëñ Tuubaa kenn du ko toppandoo gisoo fi nii boo ko gisoon koy toppandoo sëñ bi ni ngay jëkk a def mooy da ngay tiit. Mm-hmm. boo ko bu fi nit ñëwoon rek daal di def ni sëñ bi dem solo taxaw fii ñun ñëpp dañuy tiit. Mm-hmm. ba noppi nag naan kii ndax wér na waaw <laughs> ah te yu mat a mat a ràññeet la léegi nag dafa am yu ñu sëñ Touba jàngal yoo xamante ne ni nit ku ñuul bu bëggee kawe ñëpp sëriñ bi def na ko ci ñun ba noppi waaye ak ñun ñoo ngi am ñàkk fayda ak mënuñoo fexe ba ba ba def ko suñu digganteek ak doomu aadama mooy li ñuy wax régulier mu sax waaw sëñ Touba dafa régulier maanaam bi mu feeñee ba ni mu fi jógee musul am beneen melo mm. <laughs> jafee ngoon mm-hmm. waaye tubaab yi nga xam ne ñoom xam nañu nit daa gaaw a soppeeku dix ans yi ñu ne ñu wutal la carte d'identité bu bees xam ne keneen nga léegi. te sëñ bi bi mu feeñee ba ni mu laqoo li mu doon wax la wax ni mu meloon la mel di def li mu doon def damay wax nag sama benn waxtaan sëñ bu gars yi di man leen Dakar fii boo fi doon woote ay jàng bu suba saa jàngee dana neex ñii daanu ñii jooy ñii joxe addiya ñii sikkar ñii dem waaye bu suba sax woote fa sabar bul delloo baas yi nag bul delloo siis gis nga ña doon daanu démb bu ñu tëbee ba fecc seen bopp day laal baas ñoo ñoo koy tojaat léegi nag nit ñooñu nan lañ leen mën a defal sëñ bi seet lan li ma wax nit ku riidul yëwul lu mu koy defar dañoo bëgg sëriñ bi defar la ah te xanaa boo buñ lay defar da ngay am wenn melo nga mën a seet melo defar la waaye kenn xamul lan nga ah sëñ baa ngi kat sëñ bi loolu dafa mat a waxtaane ci taalibe bi ndax ñu xam ne nit day yor wenn melo ñëpp xam ne yow ñu sëñ Tuuba képp nga gëm yënguwoo ci lu dul moom xamoo lu dul moom ci moom dong ngay dox sa xol tam dara raxu ci waaye xam nga tamit euh, doon ab taalibe ci kaw nga xam ne sa waxin waxinu taalibe la sa doxin doxinu taalibe la sa dëkkin dëkkinu taalibe la te sa xol du taalibe tamit loolu njuumte la hmm? te da koy gis de Cheikh Ibrahima li mu ñu doon jàngal yëpp mooy nit ki li muy wax na nekk dëgg ci moom ci biir ak ci biti Cheikh Ibrahima ba Cheikh Ibrahima kenn xamalu ko sax weneen mel ak moom foofu dafa feelu sëñ bi moom munoo munoo wax wax wax ba waxal ko melo wudul wi wi ko ñëpp xamal moom munoo munoo lijjanti ba ba ne mës naa def nangam lu dul loolu menn xel la benn melo mu ngo bu ko defee nit benn melo la yor da gis koo xam da gis koo xamante ni ma la mën a waxee mm. sëñ Abdou seen da sëñ Cerno Mbàkke ko ne xanaa sëñ Tuubaa ñam doon defar defar ba mu doon defare xanaa nekku fi ba tey mën ne ko mu ngi fi ba tey mm-hmm. waaye yéen ñi ñi sëñ Tuubaa dajaloon ñoo wuteeg yéen ñi sëñ Cerno ne ko ah wan Mbàkke loolu mu ne ko sëñ Tuubaa ñamu ñamu dajaloon koo ci raxas ndabam mm-hmm. ba teg ko fee di xaar mu fenn ngir nga yekk ji moom dana am ful la ba du ko taxalaat ndax boo ñëwee da ngay yekk rek waaye yéen ko ko nekk ak yéen bu raxasee balaa gestu ngeen taxalaat yéen ku nekk ak yéen ci raxas lay dëkk waaye du yekk raxas rek raxas rek te xool suñu jikko yi xam ne raxas rek la sëñ bi liggéey sëñ moom ku defe ne fi ne sëñ bi day jox ay kër sëñ bi fan la koy def ndam lu tax nga mutakalat mu mutakalat mu ko gana pinan naan dana war defal la mag ña léegi nga dégg waane naan la mag ña la mag ña defoon ku ko defit ñu defal la lañ defalon mag ña waaye dañ laa war a lan mo taxoon ñu defal leen ñoom amu nañ fulla jooju buñ leen raxasee rek ñu fexe ba ndab lu tax bu yakki jote dañuy yekk rek waaye xam nga ne tiim ndab ne ne sa sa sa di ko ci ndab gis mu tax xam nga looy wax yóbbu leen ko raxas ko rek mhm. Mhm. waaw moo tax euh, régularité li tubaab di régularité nañ fexe def ko ci suñ suñ mhm. te boo régulier li tax sëñ tubaab kenn yebbu ko mooy li mu régulier moo tax dama ko wax ci tubaab ngir ñëpp xam li may wax ndax nga boo régulier nii boo nekkee nit koo xam ne ñëpp xam nañu wenn melo nga am maanaa loo wax ñëpp ne wax na dëgg waaye boo yoree ñaari melo loo wax nit ñi ne ah sëñ bi jiw kon déjà gis nga loolu d'abord ni mu lay xañ te noonu la la yàlla di jàppe malayka yi itam dañ koy nettali ndax si yonent bi sallallahu alayhi wa ku dëgg malayka yi dañ koy waxante suñ borom di leen wax ne leen waxante leen ci kaw ci ci pays yi ne diw ku dëggu la te nag boole naa ko ci dëggu ñu malayka yi di la ñee naan ay waay diwa dëgg waay Cheikh Fall la dëgg nee na nee na malayka koy wax bu nit dëggoo mais malayka yi dañ koy waxtaan waaye nee na yonent bi nee na bu nit ki mënee fen yàlla da koy wax malayka yi ne leen waxtaane leen ko xoolal ni malayka yi bari ñëpp xam ne fenkat la hmm? ba noppi di ko waxtaane te déggoo waaw jikko jikko yooyu dafa mat dafa mat dafa roy ci sëñ bi li ñuy wax discipline tamit dafa mat roy ci sëñ bi sëñ bi discipline waxuma discipline lu yaru bi nii sëñ bi discipline la amoon sëñ Tuubaa fu mu mës a nekk dëkkin yi ak waxin yi ak defin yi ak yëpp ñëpp dañuy maase ci lim bëgg nekk ci doo gis kuy doxal beneen doxalin ci jotaayam wala fu mu dëkk wala fu mu lu mu nga di ci doxale neneen ni mu bëgg rek waaye xam nga ñëw lu ci sëriñ la la la la kilifa ga waxoon euh, sëñ mu ñëw digal ko ne ko euh, bàyyi li ngay def sëriñam ne ko bàyyi li ngay def xam naa sëñ bi sëñ ba génn mu naan ah sëñ bi da man kàddoom du ma digal alam moo may digal da may xool caay-caay boobu <laughs> man ah, muy loolu <laughs> xam nga xam nga taaliba caay-caay loolu boo gisee may waxtaan ni loolu laa bëgg ñu wattandu ko taaliba boo xam ne ak caay-caay képp nga ci làmb mënuloo fexe ba sëñ bi am lu mu bëgg ci yow mënu ta nekk xam nga ne ki sëñ bi digal ci làmmiñam mu ne man aalu sëñ bi muy digal te aal bi waxul loolu làmmiñ week wax waaye aalam waxul loolu Devir Cumacini. waaw mu ngoog. ah nga sëñ nee na moom mooy sëñ même sëñ mooy sëñ. mooy gën a am moom mooy. dégg nga. ba euh, di roy ci sëñ Tuubaa mooy sacrifice. Euh, sacrifier sa bopp pour nit ñi kenn defatu maanaam def benn jëf boo xamante ni li ci jublu mooy ñëpp jariñu bu yeboo nga faam loolu nag ñi nekk ay ñi nekk ay nit ñu mag ñëpp ci àdduna loolu tax ñu mag dañoo jël seen bakkan jël seen temps jël seen lépp jaayante ko pour seenu xeet jariñu ah am na loo xam nga dama ko bañ a dugg ci béy bi waaye da xam naa ne di ngeen xam li may wax Mhm. Mhm. a waaw anna allaha arada an anaala minhu jaa waaw loolu diggante ma moom la mhm. mu jàll ci diggante rasulullah daan ne waan akuna li xaw mi muy suñ diggante waan akuna xaadiman li daw mi muy diggante ma rasulullah yàlla ñun ñi yonent bi moom loolu rek la hmm? kon moom sacrifice bi mu def gis nga tey jii nit ñi seen njaboot sax sacrifié tuñu seen bopp pour seen njaboot mm-hmm. te kat ñun ñi nga gis ñëpp mag ñu jëkk ñeen ñu toppoon sëriñ bi yëpp kenn ku ci ne jaay na léppam ngir njabootam doon dara mm-hmm. fàtte boppam mm-hmm. ngir njabootam doon dara waaye loolu amatul te loolu dañ ci war a dellusiwaat valeur cardinale la yoo xamante ni société bu bëgg jiitu day day ne ci nit ñi waaye na golo xam na boote doomam na ni nit ñi ay golo lañ ñuy wax nga wàcc nit ñi ba ci golo naan na golo xam na boote doomam yow kay boo dee doon golo doon golo rek waaye bul bul golo xam na boote doomam waaw bul yóbbaale kenn dégg dañu war a roy ci sëñ bi tam esprit sacrifice boobu waaw ak i tamit baax goo xamante ni dafa nekk ci sa biir nga xam ne dafa wir ci sa biir baax bi doonu loo xam da nga koy def ngir nit ñi ne baax nga amoo soxla ci nit ñi xam ndax baax nga waaye yow da lay wóor ne ku baax nga te yaa ngi ci baax te doo ci jóg loolu itam dañ ko war a roy ci sëñ Tuuba ak ñoom defar dañ ko war a roy ci sëriñ bi ak ñoom defar bari na nag yoo xam ne mënoon naa ko andi ci noonu ndax def nañ ci ay kii yu bare bare bari ci melo yi ñu war a gëstu ci ci ci ci waa ci sëriñ bi te di ko def ci ni ñu tollool ñun wax naa leen nag waxuma ñu topp ndoo ko waaye ñu fexe ba di roy ci moom jikko yi nga xam ne mën nañ ko roy ni ñu tollool ndax yoonu géej gi nii jikko yi yëpp di ciy feeñ mm-hmm. wéetaay mm-hmm. moom la nit ñi gën a ragal léegi xam nga dañoo ragal wéetaay ba ñuy reeloo nit ñi boo gisee ñu am xaalis lool la parce que nit ñi dañoo saay-saay ba dañoo ragal wéet dañu bëgg ku leen di reeloo ku leen di kii yooyu pour ñu bañ a seen xel bañ dem ci caay-caay bi ñu nekk naan non boo liggéeyee ba wàcc fekk yow naa yendoo sàcc liggéey ba kii dafa dafa war a wax tuuti nga ree tuuti rek dellu si koy dee foo demoon bay dellu sëñ Touba lim lim daf ñu jàngal ne li ñuy wax wiitaay as gor da ko war a ñeme as gor daa war a ñeme wiitaay as gor dina ne ci biir mbooloo sax wiir xam nga li ma leen di wax ni ñu ngi defe ne dafa ne kii la waaye lii moo mat a jàngat as gor dina ne ci biir mbooloo sax wéerut di dox doxinu boppam te mong mbooloo may am te wéttali koowul kenn ko dul yàlla ndax sëriñ Touba yoonu géej gi nii loolu lañ ci war a gën a jàng wéetaay te lu mu am wéetaay ko moom te nit ñi wéetaay lañ gën a ragal li benn waaye waxoon nee na dafa fanaan ci benn néeg jékki-jékki benn kër kenn nekku ko dafa demoon tukki ñu ñu bàyyi ko ci kër gu mag moom kenn waaye bu ngelaw li ëffee benn kopp mu bëriwu sax mu naan kër gi am na lu dul naan da ngay toog di dégg ñu yëngu da ngay da xool da ngay xool koo xamante ne kii jàpp na ne mën naa ne fi barab te yàlla newu ama jul bu xasee jàpp loolu nekk tu dund nekk foo xam ne yow defe nga ne leneen a fa ne lu dul yàlla waaw loolu de dalul sëñ Cheikh Fall dëggal waaw ah, ah, waaw Fall dëggal même ah, ah temps yi dafay cokkaas jëri tooy cokkaas rek si da ngay ànd ak moom waaw day yokk pas waaw lii ñuy wax ni moom moo ñuy jëriñ ndax gis nga meloog sëñ bi ak waa kër sëñ bi loolu ñoom ñoom ñoom liggéey nañ ba am ko tilka ummatun xat xalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tasaluuna ama kaanu yaxmalu ñoom ñoom li ñu fàggul seen bopp nii dañ ci xaw a dee de ba am ko mën nga koy tuddoo na xam nga tuddoo dara ak doon ci dara bokkul fokkuñu balaa ngay doon dara ci dara da ngay defal borom dara ci dara ah, waaw mm. waaye defaloo ko dara ba noppi ni lépp mën a loolu mun ta nekk te moom fam jaar ñëpp gis ko moo tax sëriñ bi wéetaay moo ko may li mu te moo ñaan yàlla wéetaay wéet wéet gi mu wéet nit mu su ko wéet ñaataat waaw samaaniya xijjatin ilaa xalila loo xam ne du doon na ko suñ Musaa ko wax du doom du xarit du mbokk du dugub du pepp du dara gisul dara gisul kenn gisul dara waa ah, xam nga moom wan nañu ne boo wéetee wéetal yàlla rek lépp ñëw waaye seytaane tax na ba ñëpp ragal wéetal wéet ak wéetal yàlla waaw te dañ ko dañ ko war a yooyu yëpp ay ay ay ay la yoo xamante ni yu am solo la buñ ko toppoon tey ji du jeex ndax dañ cee gëstu yu bari bind ko fu mu nekk ci ci melo yi nga xam ne moom lañu war ah hmm. <laughs> waaw <laughs> waaw xam nga xam nga mag ñi lu tax ñu war di leen waxtaane waruñu leen waxtaane di leen yéem seen pas-pas ak seen yitte ak la taxoon ñu am loolu loolu lañu war a yittewoo ñun waaye waruñoo yittewoo eh, bàyyi diw de kéemaan la woon bàyyi jiw bi kéemaan la woon te kat doo wax lim defal sëñ bi ba doon kéemaan yow kéemaan gi rek ngay nettali mhm. ah, bàyyi jiw de lu mu la mas a wax nangam te bàyyi jiw lim def am loolu ñëpp xam nañ ko nëbbuwul mhm. ah. waaw kii kii kii kii kii muy wax sëñ bi mhm. ku nga fal la maçon la woon de waaye talibab Cheikh Ibra bi yéeme nekk Ndar Euh, sëñ bi kooku ni mu kooku kooku doy ni kéemaan sëñ bi moo am na dajeek moom ci euh, pont bi noonu ñuy waxtaan mm-hmm. ndar ni may doxantu bi di dajeek ñoom ñuy waxtaan mu ne ma euh, xam nga pays bu ñuy xuree si ma ne ko waaw xuree si xeet la fa la bokk mu ne ma déet xuree si ma ne ah, la de mm-hmm. mu ne may xeet yi nga gis nii ñuy euh, xeet yi nekk ci kaw suuf nii te ñu tekki ñu judd ci mu ne am na pays yàlla yu tudd turu xeet yooyu ci kaw loolu tax yàlla di def xeet yooyu ay ñu baax di ci judd ndax fonk mu xam mu ne xuraysin kii la martaba la pays la ci suñu borom mu ne ma nag la cay tax dugg yombul mu ne ma te kat maçon la da da liggéey nii mu ne bi nga xamee ni dem nañu ba dara desul lu may ma dugg ci pays boobu mais damay doxantu ci ndar rek ba mu yàgg ma day benn alkaat mu ne ma yow foo dëkk ci ndar ma ne ko ci kàttanu yàlla <laughs> mu ne ma boo waxul loolu doo dem ci pays boobu alkaat yi dara la waaw kàttanu nee na ndeke iblis la mu ne ma mu ne ma léeg-léeg mu sol tenue nag iwis mu contrôle gars yi mu ne ma léeg-léeg mu am def naan la am say pièces ak yooyu ah mu te te booba jàpp te te te pays boobu maanaam kenn du fa dem jàpp ne lenn amati na lu dul wax sax ni dëkk luñ la wax rek yàlla ngay wax waaye doo ñemee wax buñ la ne sax kuy sa wuy sa waajur nga naa ah suñ borom a bind ñëpp mhm. maanaam ñemetoo loolu daal mhm. keroog laa jëkk dégg loolu ci Baye Fall mhm. te gis naa Baye Fall boo xamante ni bii ngeen na bi mu gisee làmp ngor bi def na ko jël ay fan ma ne ko si koy Baye Fall bari jël <laughs> man neen dafa def noonu moom lak la yàlla defal loolu mais xam tubaab bi xamuñu lu mel noonu waaw <laughs> nee na moom lamp comme làmp ngor bi la mbiram mel nee na nii lay def di tegtal góor yàlla yi yoon bi ñu war a jaal ni avion yi kii noonu na moom moo mooy liggéey loolu ci yoonu murid nee na mu def noonu loolu baatin kese la nee na mu si mu dem ngoon seen lamp ni nit la tubaab yi daal nee na jël la ko def nee na yi ñoom bañ koy xam yàgg na nee na booba booba booba booba booba ndax na nee na sëriñam da ko daa woo mu ñëw toog te tam ba Baye Fall la sëñ ne ko seetal ma diw fu mu ne ci kaw suuf mu ne nii loxoom ne ko mu ngi nii de bërëb sàngam di dox sëñ bi ne ko ah moo ne nii kay. wala mu ne ko ah moom de moom de faatu na ba bàmmee la ma ne suul nañ ko bërëb sàngam nee na ci loxoom la daan def ni bu ko defee écran lay nekk comme lii. nee mata bu gisee nit ñu yar ci di xol ni nee day yéemu ma ne ko yow di daanu ba tey te technologie bi nga gis yëpp amna baat nitu yàlla yi ñoom weesu nañ ko bu yàgg ndax yàlla defal na leen ko bu yàgg yàgg nitu ordinaire yi naga ci des naan ñi waaw li nga wax sëñ Moudou Fadiama waaw ji gis gi ne ci pénc mm-hmm. maanaam ca daggu xob teg ci noppam mm-hmm. ne maa ngi wax sëñ Tuubaa ca Gabon bu noppee ne sëriñ bi nee ne diw na nga def nangam diw nangam dégg nga loolu lii nga daaneel it mm-hmm. sëñ Fallou seede na ko waaw wax ne làmp ngor waaw Mbay Ndaw ñu ne woon kër sëñ Fallou sëñ Moussa Ndaw sëñ Mbay Ndaw sëñ Mbay Ndaw waaw xam nga mu mag nga nga moom sëñ Fallou maase ci say nee na sëñ bi mas naa jóg mënut taxaw mu toogaat. Mhm. ndax oom yu métti. ma ne ko mbay li wolof di wax ne faxat di wér dëgg la. nee na ma ne ko mbàkke loolu la war a faxat ndax maa ngi yow a maas mhm. te daawoo benn. Mhm. nee na mu ne mbay yow tay nga te man démb la. waaw kay bëggee xam ne métti sama tànk yi. dama ci suñu Alioune Fall Mbawar te Touba moom xam na ko. keroog bi ñu sunu borom yabalee ñu wàllu ji waa Badar. bay dellu xamatuma yoonu pays. Mhm. moom moo fa def biddiw ma tegtaloo ko ba mën a def. kay loolu seen ah dëggal gi dama noonu. Eh, eh, am ak sëriñ Sow. bokk mhm. Mhm. nga xam ne xamuñu li xew. taalibe boo xam ne sëriñam nee na moom la tegtaloo ba dellu ca pays <laughs> bi. loolu nag mooy murit. <laughs> est-ce que xamoon ngeen loolu mooy murit. loolu mooy murit dëgg. Mmh. murit dëgg murit dëgg day day day jàppale sëñ bi ci saayir di ko jàppale ci baat bi mmh. waaw murit loolu la mmh. waaw ah. ah murit bi daan dajaloo cotiser seeni fan jox sëñ bi eh, diw joxal temps diw joxal temps sëñ baa ngi waaj ne joxe naa nangam te loolu ku ko wedd li sëñ Touba defal Cheikh Moustapha Mbacke ak sëñ Massamba sëñ Massamba wax na loolu xam nga ne naa ne ah ñëpp dañ ko daan def Cheikh Mbacke Gaynde Fatma tawatam jëm jëkkoon a tawat da ca am koo xam ne kii koo xam ne kii bi sëñ Cheikh wéree dafa tawat ba dañ ko yóbbu bayti tëj ko fa ndax nekkatul nii am geneen kilifa gu ne ah man de diw dëkk du sunu morom te ci kër Cheikh Ibrahima la bokk de. ndax man ak moom ak diw ñoo dajaloo ne nañu yenu woppi sëñ Cheikh diw moom dee na moom. man ka la jaar man nag tëj nañ ay at moom nag mu ngi dox ay soxlaam te yenu na wàllam xaw ma fu mu ko def waaw daan ne ko ci lañ xamee ne sunu morom waaw waaye fi ñu lëkkaloo loo ci amul doole day nga sëkkal lépp daal di laaj ko ñoom ñi fan yëpp suba damaa war a defaat beneen ci moom waaw maa ngi dégg lu baax Fall waaw. sëñ maam moo ñuy soññ rek kon. waaw waaw waaw mënta ñàkk kat nañ sëñ maam dolli. waaw mënta ñàkk defaat dolli na ko. Euh, sant ak siyaare rek. waaw. di ko njëkk suñu waajur yi fi jógee léegi. waaw wax nañ Mm-hmm. ak sunu maam soxna Aminat mm-hmm. soxna ak ak njaboot gi yëpp mm-hmm. di siyaar itam njaboot sëñ Cheikh Fall Mbaor di fekk bi xam nga nu ma koy tuddee sax lépp la maanaam yàlla def na buñu masaan daje bitim yoon mbàkki mbàkki yi dajal dañu wax ne Baye Fall yi ñu matee ñaar rek ñàkk nga seen bopp nañu ne <laughs> <laughs> dañoo bokk seen waxtaan dañuy dara yàlla dogal ñu def ci benn hôtel fan yu bari. Mhm. dana mujj tuxu ñu bokk benn néeg. Mhm. man moom itam te bëggut lu fi Cheikh Ibra Fall. Mhm. te ak yëngoom ak dalam yëpp ci liggéeyal sëriñ bi la ko. niñ ci wax it bu sori. démb 5 heures du matin fekkut ma àgg Touba. te ñu ma sëñ Ibnu woowee dama wàññi léegi ñëw. looloo démb la ndax li wolof yi naan koo xamut noo koy def ni mu la defa tax ndax nun dañoo nekk ci matale ak doxal rek mhm. waaye liñ suñ daje bi dafa dañoo jiitu dañoo ñëw jamono ci seen maam ak Cheikh Ibra Fall la woon noppet seen maam Cheikh Ibra Fall féete wala woon ko néegu soxna Fatou Seye gannaaw ñoo Cheikh Mor Fall moom seeni maam ak seen ñaar yéen Fall ndax li nga wax léegi ci dogu kaal yi mhm. naa ne ñu bari miin nañ seen maam ci kër Cheikh Ibra mhm. demoon na ba moo dox diggante sëñ Aliou mhm. ak sëñ Fall mhm. sëñ maam Mbaye te bi muy jógee fii dafay bàyyi liggéey dogu ci kàddu sëriñ bi dem fekk ji ko ngir jàppale ko ci li muy liggéeyal Cheikh Ibra liggéey ko liggéey bu rafet kon maanaam waxuma sax ñu woote ñi ci safar waaye buñ déggoon buñ leen ci dégg waaye buñ leen déggoon ci leneen ne daway xeex sax dangaa mm-hmm. war a dem sotti te doo laaj lu sax mm-hmm. kon rawatina tey bi ñu woolee ci sëriñ la loolu mooy suñuy tànk bu gënoon a soreet des na ko defe na loolu nag daje tey bi ak cant la ci ñun ñëpp mais damay wax ne safar ab bàyyi faa la ci war a ëpp ak cant ndax nun noo am ndax tey bu sëriñ bi dellu siwul woon coow lépp Cheikh Ibrahima lañ fekk mm-hmm. ndax nan ko lépp yawa mu ne tey aw xas la waaye bu ëllëgee aw tagg lay doon defe naa bu sëriñ bi ñëwut woon it lu ñëpp maase wax mooy Cheikh bi Kata ko jay lu ne mu jiñ ko bañ sànki kon tey bu ñëwee tim buñ koy feetal di ko gàttal ñun njabootu Cheikh noo ci war a mën noo ci war a jiitu safar bi ñu def nag damay wax ne sëñ Tuubaa njëkk a def waxuma 18 safar safar gàttalu safar ndax sëriñ bi xarajtu yowma sabti saamina asar am na ko lu ko jiitu mm. muy xarajtu yowma sabti rabiu saba génnee bagaasam këram yëpp jal ko ci suufu jàkka ji mm-hmm. toog di xaar bis bi mu war a liggéey mm-hmm. kon waajal safar sëriñ bee ko dencoon waaye moo ko njëkk a def kon ku ko def ci biir defuk sëriñ boobu nga ko def alhamdulilah kon yàlla mel ne waajtaayu sëriñ boobu te it lam ci ay ngëneen lépp ñu daje ci ak moom daf di nag li mat a wax lépp seen ñu wax na ko daanaka jëru guddal mm-hmm. ndax ab taalibe moom tekki na boppam mooy kuy sàkku te kuy sàkku ku nekk li la jikk mooy am am rek mu jik kuy sàkku ni ko sëriñ bi waxee léegi sa njaga mu nekk waajtaay woo xam ne dañ koo waaj ci alxuraan xasida ak sikar moom lañ ko defee fii ci béréb bi ak ber bi te lu sëriñ bi mas a woote la ca gën Cheikh Ibra Fall la ko moom ndax inna salaat tanha anil fahshaa'i wal munkar waaye lan la ca teg wala sikrullahi akbar li mu diglee julli xam ne ndey jële nit ci lu dul noonu yóbbu ko ci ak baax baat ba mu ci teg dafa waat ne waaye giñ na ne tudd yàlla moo gën Cheikh Ibra Fall tudd yàlla lañu jëlal sikar lañ ci def léegi maa ko doon dégg sànq ci téléphone sa nit kon dafa mel ne ni sëriñ bi bëgg ci safar lépp matale nañ ko fi def nañ ko kon daanaka jërul guddal kàddu dañu <laughs> dañ doon sant rek di sant njaboot bi yëpp tam ndax damay wax ne demuñu ba tey soo ko bëgg lii ñu ngi ko waxee sànq maanaam ñoom lu ñu doon la waaye lu ñu bëgg la bi ndakaaru di gën a doy waar ñoom ñu gën di tuuti tànk li ñu doon gën a def mooy dem ci daayira kuréelu sikkarulaax yi di tudd yàlla ak di liggéeyal sëñ mën naa ne ba fii ñu toll li gën a jafe ci jamono lañ mooy mooy addina daanaka bu ñu xawee rawant ñu doon ànd dootuñu ànd mm-hmm. te mën naa ne seen daayira bu woon liberté 6 ak ñu doon àndal ci yenn kuréeli école yi ba léegi bu ndaje jotee ñooy daj kon sëñ Tuubaa rek a tax ñoom kon loolu yàlla ko sëriñ bi saxal yokk leen ay xéewal te dooleel leen ngeen yéene ci liggéeyal maam Cheikh bi yéene ko ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ngeen àggal jërë ngeen jëf wasalaam wala da ngay bismillah si ngam bi ah. gaa yi koy joxal ah, wax na ba noppi Wonderful.